li jombe woon mooy ràññee sëriñ bi ba fu mu mën a ne ñu xàmmee jëmal jee li jombe woon mooy ràññee sëriñ ñu xàmmee jëmal jee wan nga se Ahmadou Bamba ki kamala tëdd naa ni xalaat naa ni way sa saal lu ma war naa daañ yeewu leen ni way sa saal njariñu neen la daañ yeewu leen ni way sa saal mujjee ñëpp a moo ñu dimbali ci jamono jax-jaxam yee daañu yeewu leen ñu way sa saal njariñu nee la ba bu toogee dañuy indil ma ndaw ma def si ñoom loolee sarintu ba defoo sama ña njaare yeewu leen ñu way sa saal njariñu nee dara desatu fi lu dul sa xol di ko sant na jërëjëfati sëriñ Saliou warlo dañu wootaay bi ñëw way sa sal wota si man mi um si man a toon ñëpp la dimbale teral ñi nga xam ne moom moo di way sa sal sëriñ si waaye teral ñi nga xam ne moo di mën a dem ñëpp la dimbale daana def bisam moom dafa gën a yaatu defaree bi ñëpp yéen a mais cuuraay ay cuuraay bi ñuy sotti ndox mu daal di mu ngi noonu yéen a koy gis noonu mu ngi organisation bi. wax ma foo ne ma fekk si la boo ma jël si la yóbbaale la Touba. sëñ Bamba ma wata cant gi béy tey bëri la mooy bii bii waaw. kuy jor fifty jàmbaar ji Serigne Saliou moo yëngal xol bi waaw akay jàmbaar Amadou Gueye Njoro mooy Saliha mooy seeg ñu dalal la teral la bernel la sagal la waat naa ni ba yaatu na amul xaar seen bëgg féex yow ak doo nunu waajal te dem siyaare sëñ Saliou ndigal cuur mënulu bàyyi ba bilaay walaay jëfam yaatu naay waaw suñu papi laal ak laaj cuur kon bégal bis bi sa bis la ma duru sal yow mii di bégal bis bi sa Ndiaye Pouy euh, ñu nekk ci service bi euh, fi ñu toll nii ñoo ngi ci li nga xamante ni nii euh, moom moo di service bi te xam naa ne incha allah ci kanam tuuti dañuy daal di génn fële nga xamante ni nii moom moo di ca ëtt ba foofu ca hall bi nga xam ne yaa ngi fay gis buffet boo xamante ni buffet la bu am solo lool waaw en tout cas ku fi ñëw xam naa ne. da nga ndékki ndékki lu mucc ayib li ñuy wax naan petit déjeuner royal euh, tey loolu moo xew fii ci nindi loolu moo xew tey fii ci kër ay euh, Yaay Puy Mbàkke ma ngoogu toog euh, di soxna soo xamante ni li tubaab di wax une grande dame c'est une grande dame alaaji Mbay suma xarit bi maa ngi lay ziar taalibe Cheikh Ahmadou Bamba baa ngoog aka bari jom aka baax maa ngi lay nuyu bi Serigne Bamba bi maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar sama waa ji. maa ngi lay nuyu. tey ñu ngi fii ci kër Cheikh Abdou Karim. Mhm. xam nga yaa puy ni mu koy defee chaque jour bu ne ci bisu màggal bi. Mhm. ndekki ni mu koy defee yaakaar naa du ma ne amul fenn mais bariwul. Mhm. dara waralu ko nag lu dul xëram ci Serigne Touba. ak topp gi nga xam ne moom sëñ Karim rek lay topp. waaw toppul kenn moom Baye Karim rek lay topp Karim rek topp boo gisee mu toog nii macha allah. di diriger boppam mënoon naa toog. woote di jox ay institution naan man li ma gën loolu ci la bokk. dama naan njabootu Cheikh Abdoul Karim gi. yar leen yar. ba bisub màggal gi. mënoon nañoo toog ci seen i salle mbaa seen i mhm. joxe ay ordre taalibe yi exécuté. Mhm. mais dañoo génn jaxasoo ñoom. Mhm. nanguwuñ sax ñu ëppale leen ci ci ci ci organisation bi mbaa liggéey. xam nga lu waral loolu. waaw bis bi mooy bisu jëf jël mm. gis nga boo toogee yónni sa taalibe waaw bu sëñ bii fay sa taalibe du la fay Cheikh ko waxoon waaw moo tax ne woon na bi ñuy gas euh, euh, raayu njaareem bi ne woon na sëñ Tuubaa bu wóoteeb liggéey mhm. boo yónnee sa doom bu del see doon sa baay boo ne sa soxna bu del see moom mooy doon sa borom kër kilifa yi loolu lan xam leen def leen de ñooy ñëw di ko ànd ak ñoom dafa maandu maandu goo xam ne lu ko waaye liggéeyal da koy fay loolu moo tax ñoom ñooy ñëw jiite mm. ndax ku nekk bëgg bëgg fayuk sëriñ bi yaay puy nag euh, ni mu koy defee moom mbégteem Cheikh Abdou Karim mbégteem rek lay sàkk waaw boo gisee yi muy loolu damaa bëgg nga di ko wax ci kaw nay biir waaw moom mbégteem wax jooju bul ko di yellu bul bul bul ko bul ko yellu te <laughs> ko biral waaw mbégteem Cheikh Abdou Karim rek lay sàkku de fu mu mën a dem lu mu mën a def foo ko mën a dégg yaay puy mbégte Cheikh Abdou Karim rek lay sàkku waaw moom sëñ Karim rek lay topp loolu nag euh, topp sëñ Abdou Karim mooy topp sëñ Fallou waaw topp sëñ Fallou mooy topp sëñ Bamba topp sëñ Tuubaa mooy topp yeneen tamit te boo topp yeneen tamit fu mu la jëmee ci yàlla ca yàlla nga jëm moo tax man may yow rek laa bëgg <laughs> moo tax bis bi ndeysaan dañ ciy bég waaw dañ ciy bég bu ñu ñëwee fii gis lii teraanga yi xam nga lii lu muy wane Mara. waaw mooy sëñ Tuubaa moo moom lépp. moo moom lépp. mooy sëñ Tuubaa mooy plafond bi. zimaamul wara asri la. waaw waaw yàlla jox na ko lépp. waa jeex na ba pare njariñ la lu àndul ak lor. barki maam boo fi ñëwee woon daaw. ndeysaan lii ca buufe ba la la jëm. waaw gis nga waaw kewe toppal gars yi. waaw <laughs> waaw da nga naan lii bu déwénee du am. waaw mais ren da naan mës sa am. barki maam Cheikh waaw te incha allah bu déwénee day yokk. waaw loolu nag li sëñ Tuubaa di wax ne sa nafxin bilaa daralin. waaw njariñ la lu àndul ak lor mm. chaque année day feeñ ci liggéeyam bi ba tax na yaay puy dañ koy ñaanal uh-huh. lii nga xam ne moom lay def yëkkati ay millions ah, centaine de million lay yëkkati di ko def ci màggul sëñ Tuubaa gi yàlla na ko ko sëñ Tuubaa gën a man loo waaw yàlla gën ko fee bàyyi bàyyi ko Cheikh Abdou Karim mi nga xam ne uh-huh. moom li may wax toppul ku dul moom moom sëñ Karim rek lay topp waaw taalibe yi sëñ Karim rek la ñuy topp li ñu gis ci moom gis ko ne ci sëñ Karim rek lay topp li jombe woon mooy boo ñëwee fii ne dañu màggal li suñu wax ne bernde moom ku fi ñëw kër sëñ Thierno day màggal bernde la bernde bernde waaw ku yor yor màggal waaw waaye maanaam li li ñuy ndekkee rek màggal xam nga li ñuy ndekkee fii màggal na yeneen kër yi ak ñi ñëwagul ak ñi ñëwagul ak yéen ñi ñuy yëkkati ñu ko jox ñëwagul kontaan ci moom di ko di ko bëggee di di ko ñaanal toogaayam bi. waaw yàlla na sax ko yàgg a toogee. yàlla na ko yàgg a barke Serigne Fall. tëdd naa ni xalaat naa ni way sa saaluma way daan yeewu leen way sa saaliwu boroom jamono jee ñëpp ko war a waay moo ñu dimbali ci jamono jax jaxam yee daan yeewu leen way sa saaliwu ne bu toogee dañuy indi yaram du nool yaram du nool aja yaram du nool non ah, dundu doyul dundu doyul barke waa général eh, Serigne Bamba ne woon na ku mës sama màggal gi rek yaa ma ci man bu ñëwee def ne dañ ko ko santalee yàlla suñu borom te bernde li ko dalee ci ginaar ba ci gileem nee na bul am gileem ba naw waaye bul am ginaar ba xeet barke maam Cheikh Rama eh, Kébé toppal ma gars yi ci biir bi comme ñoom seen wóor yi dama bëgg nga toppal ma leen bu ko defee ñu gis li nga xamante ne moom moo di bernde yi kër Baye Abdoul Karim Mbacké borom makaari ma tax laa yaay booy kaay loolu moom fii nga koy waxee kaay ñëw kaay ñëw Sëriñ Bamba rek lañ gëm moom lañ wóor moom lañ yaakaar waaye ñu ñaanal Sëriñ Fallu Mbàkke di ñaanal Sëriñ Abdou Karim suñu wasila yàlla na fi yàgg te wér te lépp nag sëñ Abo du Sëriñ Fallu ñuy ñaanal soxna yi yëpp yàlla may leen tudd fan ak njaboot geeg ñu dem barke Cheikh Mbacke ay ba jëm na tullu ma waa taxawal ca picc ma